ah bëgg nga guy gi. guy gi kay ma ko amoon mooy gën a neex sax koo xam ne wax rek la man manul dara wax rek la man maa ngi koy nuyoo passage sunu grand la sunu lépp la mais na wàññi tuuti communication bi wax ji tey jëf. guy gi ndaanaan la moom laa la wax. champion la ndaanaan la sunu grand la mais na wàññi tuuti communication bi tey jëf bu nee la kii yaa fi man moom loolu lay bañ a dégg maa fi man na ñëw jël ma. mais rek ba ñeme nga guy gi fii mu ne nii. guy xoolal fi guy gi jaar. guy gi xoolal fi gi jaar ak ni mu. alay di xam nga tey jii simpi def coppet lay def. teel say gëñoo buddi la. non père xam nga jii man euh, du ma tooñ. te may ba nit ki dépassé ma. Mhm. nest xam nga nit bu xamul waxin. waaw doo dugg si moom gàmmam bu bari mhm. na ma baal si kàddu gi nag. Mhm. tooñu ma ko waxuma dara danga ma posé question. waaw maa la ko laaj. n'est-ce pas. xam nga nit bu xamul waxin. doo dugg si gàttam de trop. xamul waxi na ma baal nag si kàddu gi ndax yaa ma ko laaj. Mm-hmm. waaw loolu la quoi foofu laay yem. mais dama ne la guy gi. Mm-hmm. guy gi bu ñu dajee. Mm-hmm. du bëre du xeex du def dara day ñëw rek daanu. mi ngi lay dégg de guy gi dégg nga li nga xam ne waxuma ko rëg-rëg moo ko wax te nee na soxla na la fi mu ne nee na lu nu ko fay mu bëre bu bëggoon suba suba suñu combat taxaw suba mu taxaw guy gi moo mu di guy gi ngay wax bu bëggoon suba suba suñu combat taxaw mu taxaw xanaa day daw naan bugguma rek rek wala na fi def lu ma fi deful guy gi moom lu mu fi def man lan lu ah, guy gi lan la fi def te man defu ko loolu laaj waa Sénégal àdduna. wuy leen rek rek wuy leen rek rek rek nee na lan la fi guy gi def te moom defu ko. waaw nee na jant bu tasee ak guy gi nee na du jéem du puus. du paas moo ko wax man maa ko wax loolu maa ko wax te fii laa ko waxee guy gi bu ñu dajee du bëree du xeex day ñëw daanu. loolu bu ma jëlee def bu ko bu ma jëlee bu ma jëlee ni ma bëgg lu fu ma bëgg mu tëdd foofu lay tëdd. waaye Reug Reug bul wax loolu nag guy mbër la nag. waa léegi na ma jël loolay wax ji na ma jël. guy gi ragalu la de. na ma jël. te ku bëri ak ay sos daal di daana am abal de. Eh, bokkul xam nga boo boo ma tëkkaleeg mbër yooyu rek bokkuñu kenn ku ne da nga am yàlla suñu borom lu mu la may xam nga lu ma suble yàlla suñu borom dafa séddale te yemalewul kenn ku ne daa am lu la may ñii dee na may mën a wax. ñi day na may cëfër cëfër ñi day may tee ñi day na may mën a bëri ñi day na may dal ñëpp bokk ñu yem xam nga nit moom boo mënee wax dal lay bàyyi ak sa mën a wax mm-hmm. mais ñun dañoo dal xam lu ñu bëgg maa ngi ciy bantuwaat ne la guy bu ñu bëree. du puus du paase day ñëw fu ma tëddaloo foofu lay tëdd. billahi dinaa seeti guy gi. leer na dinaa seeti guy gi. waaw incha allah dinaa seeti guy gi. boo demee. dinaa ko seet déglu ma boo demee. ma wax la lu mu lay wax. te si te te dégloo gu mag. daan la kooku defu ko fi lu ma fi def. loolu la lay wax wala ki kooku du ma ah, moromam loolu lay wax. non non def nga fi dara. waaw baax na bisimilah. waaw non def nga fi dara. naa la ka waaw incha